bi ñu ko déggee ak léegi sax matagut juróomi minute ci benn waay bu ñuy wax Moustapha Diakhaté di ab politicien bu ñu xam bu siiw dafa jéggi dayoo nag ndax kàddu yi da koo jëmale ci ki nga xam te ni mooy nuurul bashariya mooy leeru mbindeef yépp di sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li olof yi wax nag ni waxkat dana wax ba làmb ginnaawam ni lii du sama bos xam naa moo ko dal ndax yonente bi de alayhi salaatu wasalaam yaakaar naa kuy wax lu ñaaw di ko jëmale ci moom ah kooku nag moom jot na sëkk ñu arrêté ko ginnaaw nag bu ñu waxee lu ñaaw suñuy waajur ñu jóg bu ñu waxee lu ñaaw suñuy sëriñ ñu jóg kon nag suñu sëriñu sëriñ bu ñu waxee ci moom lu ñaaw ñu war a jóg nag yonente bi nag dafa waxoon ne ku gis ci yéen lu bon na ko dindi ci loxoom bu ko mënut mu dindi ko ci làmmiñam bu ko mënut mu dindi ko ci xolam ku ko dindiwul ci sa xol nag nee moom daanaka amatoo ko bu néew bu néew doole nga am li mu wax nag xam naa ni sax jaaraat ci dana métti ndax dégg ngeen ko yéen ñëpp waaye daal waajur yonente bi yim saaga wax ni samay waajur ñoo gën waajur yonente bi alayhi salaam wax ni man faalewu ma waajur yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax la bu ñaaw bu jéggi dayoo boo xam tey bu fekkoon ci république islamique lañ nekk dañuy def li ñuy def ihdaar dam dañ koy def dañuy jaay deretam daan ne kii ko dajee moom na ko rey su boobaa loolu la ñuy wax ndax am na ku musa wax yonente ay salaam lu jigee loola waaye yonente alayhi dafa waxoon ni ni ko gis na ko rey ku ko gis na ko rey la waxoon ba mu ñëw ba jéggulu waaye daal na xam ni ñun ci lislaam ñun ci lislaam dañoo mokkal maam yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam maamam yépp ba ci adnaan dañ koo mokkal moo tax waykatu murtaniye bu baax ba di wax naan wa nasabul muxtaari mahfuzun ila adnaana bil ijmaai inda al fudala ma in shahin aqin kamin kalxafa min kaxmin amnin maanin ila huna zukin dafa wax tari maam yi bi yépp mu tari ko ba ca Adnaan ba ca Adnaan moo Sëriñ Tuubaa sa daa wax naan euh, maaram mooy suñu Adnaan nga xam di roy ci sunna soosu kon maam yi bi alayhi salaatu wasalaam yonente daan ci ab sëy bu dagan laa juddu waaye judduma ci njaaloo mukk judduma ci njaaloo moo tax kàddoom yi mu wax na jëmale ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax la yàlla métti na lool ci xol métti na bi nga ko déggee suñu ronkoñ daanaka tuur na ndax xol bu jeex bi ñuy jóg di wax sax daanaka tëyetuñ ko waaye li ma ci bëgg a leeral tuuti rek mooy masiiru masiiru waaliday nabi alayhi salatu salaam maanaam yonent waajur yonente yi alayhi salaam yonente bi alayhi salaam anañu fuñ nekk ndax ay jurit lañu woon wala déet wala ndax ñi ngi aljana wala ñi ngi sawara fuñ nekk moom nag xam naa ni dafa dégg yenn wax yenn ustaas yi rek ci loolu ndax am na ku ñuy wax Omar Sall di ab oustaz bu ñu xam ci Sénégal moo njëkk a taxaw wax lu mel noonu wax ni waajur yu Yonent bi ne nga sawara noonu la ko Omar Sall waxee ba tontu woon nañ ko ci. xëy na moom mi ci fikra boobu ci la ko jëlee xëy na waaye dafa xam-xam da koy jëlee fa nga xam te fa la amee li subuha bi li indi gàll li indi jafe-jafe bi mooy dafa am ku mos ñëw ci Yonent bi ni ko ànd sama baay Yonent bi ni sa baay ma nga sawara. mu dem wan ko ginnaaw bay dem yonente bi wooluwaat ko am ñëw mun ko sa baay ak sama baay yépp na nga sawara ñu bari sukkandiku ci loolu bëgg a wax ni waajur yonente bi ak salaam ma nga sawara te wallaahi demewul noonu te wallaahi demewul noonu waajur yonente bi ak salaam nekkuñ sawara loolu nuñ koy firee xadis boobu ñu bari ci borom xam ne dañuy wax ni baay dana firi maam baay dana firi maam comme li yeneen saa wax ne ana nabiyu laa kadib ana ibnu abdul muttalib man maay doomi abdul muttalib te abdul muttalib maamam la abu taalib bàyyam bu ndaw la ñu am nañu ni moom la ci jublu am nañu ni abdul muttalib la ci jublu ndax ñoom ñaar kenn faatu ci ci islam ci shirk lañ faatu ci li gën a wér waaye jëmmi bàyyi yonente bi alayhi salaam nan lay nan lay nekk ab yéefar nan lay nekk sawara te moom sax fekkewut lislaam yàlla borom bi subhanahu wa taala wax ni ahousu billahi min shaitan rajim wa ma kunna muazibina xatta nabaasa rasulan duma duma benn xeet duma duma kenn te yónniwuma ci moom ab yonente ba mu ñàkk a topp yonente ma doog koo duma waajur yonente ba sam ban yonente lañ yónni ci ñoom question baa ngi noonu waajur yonente ba sam ban yonente lañ yónni ci ñoom moo tax borom xam-xam yi ku mel cheikh cheikh duddoo day wax ne ñoom ci fitra ci ahlul fatara lañ bokk ci ahlul fatara lañ bokk mooy ñi nga xam te nii seen jamono yonente ñëwagul woon ndax ñoom ñoo jur yonente bi alayhi salatu wasalaam ñoom ñoo jur yonente bi alayhi salaam kon yonente ñëwagul woon seen jamono kon ginnaaw yonente jamono ñëwagul woon seen yonente kon kon ban yonente ñu ñoom kon kon yàlla jurul woon yónni ci ñoom yonente te yàlla nee na ku ma yónniwu ci la duma foofu la wax mu ni Cheikh du doo wax ni euh, maanaam loo xam dañ koy yaakaar rek munta munta munta dëppoo munta wuute ak loo xam te ni moom dafa leer ndax li leer mooy yàlla wax ni ab yonente duñ ko yónni mukk duma duma mukk kenn te yónni mu ci ma ab yonente loolu moom mooy li leer ñu xam ko te leer na tamit ni waajur yonent bi saam kenn yónni wut ci ñoom bi ndax ñoom bañuy bañ fiy nekk fekkoon na ak yonent ci kaw suuf ba ñoom ñu feeñalaat juraat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam mu feeñ ci ñoom kon loolu fa la borom xam sukkandikoo ni kon ijmaa gi maam ak nas bi dafa leeral ni kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay waajuram kenn du wax ni ay yéefar lañ ay wajuram kenn wax ni ña nga sawar kon mustafa Diakhaté li mu wax te xamna ci Omar Sall dafay dégg xëy na baat la bo xam war nako toob mbollem khalifa xalifa généraux yi war nañ ci war nañ ci war nañu wax ak mom mu delu ginnaw ci li mu wax toob ci bu toobu tamit ci lolu ci sa gi mu saaga yonente bi alayhi salatu wasalaam na xamni l'islam mang koy xaar fo xam xeyna buñ fa agge dana métti ci mom lolu amna ko xamni xam ni day daa wax ci gaay yu bax yi lu bon waye bamuy muy faatu abu hurayra rek la daan wax lu bon ku ñuy wax abu da daan saaga abu wax naan amut waaye ba muy faatu da doon wax naan ah, ah, ah, loolu la wax ba sukkuraat ba faatu kon Moustapha Diakhaté mii de kàddu yii mu wax maa ngi waat ci yàlla mi ñu bind ni bu fekkee tuubu ko delluwaat ci ginnaaw xam ni yonente bi sa mooy sangu bindee fii moo gën ñëpp na xam ni bu bay sukkuraat dana xam ni yàlla rek mooy yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ko yónni mubashiran wa naziran bashiran wa naziran muy bégal nit ñi ci lu baax di leen xëpp ci ñu moytu lu bon kon nag mustapha dellul ginnaaw ci kàddu yi nga wax politique jërub saaga yonente bi alayhi salaam défendre euh, politique jërub saaga mere nit jërub saaga yonente bi alayhi salaam aji saar jërub saaga yonente bi alayhi salaam Sonko jërub saaga amul kenn ku jar saaga yonente président Macky Sall jërub saaga yonente bi bi mooy jiitu ñëpp mooy lépp te mooy gën ji bindeef moy ngeen def Serigne Touba mi nga xamanteni moy suñu yaakaar fi ak fañ jëm mom day jox na yonent bi ab ciiram waxna moy kan neena mbindef la de waye yëmut ak mbindef yi neena jaamu jaamub yàlla la waye yëmut ak jaamu yàlla yi ndax yàlla moko tan tudde ko mustafa tudde ko al mukhtar tudde ko ki gën ñëpp muy Sayyidul bashar yàlla ci boppam sax da ko respecter respecter ba bu koy wo du ko woowee Muhammad yàlla buy woo yonent bi nabi la koy woowee wala rasul saa yi ko woowee muhammad rek daañu ci teg nabi wa rasul wa maa muhammadun illa rasul qad xaaj min qablihi rasul muhammadun rasulullahi saa yi ko waxut euh, rasulullahi rek wala nabiyullahi rek xamal ni su tuddee turam directement du ko sàllalu kon yow yaa ngi sàllalu ku yàlla du sallalu yaa ngi saaga ku yàlla du saaga yaa ngi mere waajur yi koo xam te ni bañ feeñalee leer gu mag gi yàlla dafa bëgg ci leer googa leer gi feñal ñom ñaar buñ ko feeñalee mbindeef yépp al bashariya dañu bëgg képp ku bon ku melni ni yow dafa jaaxle won suux ba sawara sax sañ doon jaamu dafa jaaxle suux xëy nak nag dangaa xamul kan mo yoon bay sax mo tax nga wax li nga wax waya ni lay interpeller